ku wérul lu liggéey ba am lu muy jox njabootam ku wérul du jaamu yàlla kon nit ki boo ko dimbalee ba mu wér di jaamu yàlla def naa di ci am tuyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi siiw seen seen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax di leen fàttali ngi seen programme fagoru euh, fagoru nag moo gën faju comme ni ñu ko waxee ci euh, émission bi passé euh, parti tay bi nag ci feebar yi nga xamante ni moom la professeur ñëwoon muy les maladies génétiques nga xamante ni leeral na ko génétique ak ak euh, héréditaire bokkul maladie génétique yi maanaam ci gènes yi lay lay nekk maladie héréditaire yi mooy yi nga xamante ni man di koy doon ci ay waajuram xam naa muy seen raq bu ndaw ñëw doolee ko si muy maladie contagieuse yi nga xam ni nit da koy wàlle nit directement comme ay sotew yooyu voilà yooyu leeral nga ko macha allah am na solo te nag professeur ci li ñu bëgg a ñëw mooy euh, fagaru moo gën faju waaw mooy deuxième partie bi mm-hmm. muy euh, yooyu ku ci bëgg a mucc maanaam nan la war a nan la war a comporté woo nu mu war a dundee et cetera et cetera salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ba maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sunu mbokku wax ni ñu ngi ci deuxième partie bi bi nga xamante ni comme mooy sa partie mm-hmm. que moo tax sax mm-hmm. bi dañ koy wax rek pour leeral loolu moom médecin yi la waroon sax. waaw dañ koy def rek loolu la. fa la ñuy yem. mais lii li nga xamante ni nag mooy médecine traditionnelle dëgg-dëgg. mooy bi. mooy yan kii lañ ci solution solution ak yu dem la. day fekk nag nit ki balay xam lan lay daw. xam lan moo koy dàq. moo tax ñu def premier vidéo bi. pour nit xam feebaram bu ba pare nag. doo xam saafara. dafa nekk loolu laa wax nit boobu daw la nga xamul lu ko dàq normalement. donc boo xam nga dàq rek moom ngaa daw. dëgg la waaw mos nga nekk dàqet. waaw donc bu ko defee. sëñ Pape les maladies génétiques. dina nekk nekk loo xamante ni. pour joxe ci prévention solution. du du yomb. du yomb mooy parce que c'est une maladie yoo xamante ne en général. nit ki daf koy doon ci ay. baara bu nekk héréditaire. mais doon ko biir vidéo bi passé bi waxoon nañ leen ne ëpp na huit mille maladies. kon pour nga pour nga développer ko pour nga pour nga moytu ko. du yomb. pour nga am ci solution tamit. du yomb lan rek nga ci mën a amee solution moom nga dama xam a mais li ñu mën a wax mooy. wax nga ko ci première vidéo bi. c'est-à-dire que les maladies génétiques. Mm. dafa nekk maladie yoo prévention yi. ministère de la santé du ñoo ko engagé. Mm, war nañ ko yokk quoi. waaw war nañ ko yokk war nañ ko def. Mm-hmm. mais eh, parce que la le premier première bi ci njëkk am. Mm-hmm. mooy que la communication. Mm-hmm. la communication des na moom bu baax la. léeg-léeg say sport ci télé bi. mais des na. waaw des na ah, des na quoi. sensibilisation sur la communication. c'est-à-dire que il faut que nous nous ñu sensibiliser leen.

personnes. Hein, mhm. communication. donc premièrement ci des mooy l'identification des jeunes indispensables. ça mhm. veut dire que par exemple xam lan exemple moi, identifier gène bi ba xam ban gène mhm. ban ban ban gène wala ban. effectivement effectivement donc il faut ñu am benn identification. il faut ñu am aussi ce qu'on appelle des dépistage. dépister wu pour nga xam feebar exemple te en général parfois tamit euh, li muy gis ci bëri état di ko def mooy que dañuy jël ay journée wala yu demee noonu. or que dañuy jël dépistage gratuit ak yu demee noonu di ko def benn une semaine wala benn un jour wala deux jours. Mm-hmm. donc ça ne suffit pas. ci ay millions de personnes. Mm-hmm. donc dépistage boobu il faut di mën a gën a yaatu. de deux moy moy li ñu ko wax la communication bi il faut que yaatu tamit dépistage boobu di mën a ñëw. Mm-hmm. conseil aussi sur les génétiques. c'est-à-dire que il faut ñu am des expériences, même des ñu leen génne teel. wala yu mel noonu di ci waxtaan ci def bi mel noonu. généticien lañ leen di wax yaakaar. waaw kay waaw ñoom dañ ci waroon di génn di leeral nit ñi. dëgg la parce que xam nga dafa am yenn feebar yoo xam ne ñoo am li ñuy wax la stigmatisation maanaam dañuy bon nit ñi ci li mu daal. da mhm. fekk ñoom ñoom duñ ci dara. Mhm. mais fi ñu dëkk da leen di dem ba xeeb leen. Mhm. dañ leen di si ñoom dañuy dem dootuñu mën a génn. nit lu mu xamul da koy ragal. waaw kay nit dina am feebar boobu xamoo lan la. nga ragal ko di ko moytu. te xamoo sax ni feebar ba. maanaam kooku loolu day tax sax bu gaaw a dee ba moom. effectivement te fekkee feebar du la waal mais xamoo xamoo waa kay mhm. nga di ko daw da mhm. fekk feebar boobu waale bi ci des mooy da ngay gis wax day am doomam mooy stigmatisation bi la moom la ci parent bi njëkk a commencé booxul ma la sa xéwal bi comme foo foo ko jëlee mhm, dèjà yow yaa ngi koy yaa ngi koy naqaral wala yaa ngi koy xam nga teg loo xamante ni yaa ngi koy yokk yaa ngi koy yokk yow parent bi yow bi ko war a jàppale yaa ngi koy daw yaa ngi koy nax indil naqar boo ful ma rek xaw ma sa xiiwal foo ko jëlee sa sewaay bi sa nangam ak nangam sa xiiwal ah, kii ah wala bu dee parent a jot ah lu ma am kii naa ko mhm. jëndee la ko ordonnance nangam naa xam yooyu day nekk loo xam lu leer na lu baaxul sa ah, yow koy boo am jëkkër nga am jëkkër yu am xaalis nag yooyu ah, parent koy doomam day am da koy yaa ngi koy defal beneen problème. te yaa ngi gën a jëmbat loolu ci moom. waaw kay. jigéen ñoom dañuy dem di naan ay doom pour am yaram. parce que nekkul ñoom ñoo bëgg yaram de. mais nit ñi leen wax da ngaa jeex. da ngaa jeex da ngaa ah, sew da ngaa kii. loolu nag day joué mentalement ñu bëgg def contraire bi. te suñ leen bàyyi wala du càmm sax. du càmm sax constaté du ci sax bëri nga wax. deuxième bi yow ñu koy wax loolu sa doom mën na am yàq wàll. Mm-hmm. comprendre taxawal waaw kay taxawoo ko mooy li nga wax seen yaa ngi koy xas te pourtant yaa te pourtant da ngaa toujours xam xaw ma fa ma toppee <laughs> mhm. mooy moo tax man ne dañ ci war di waxtaan xam ni feebar jombul kenn feebar jombul kenn yàllaa koy tege bu ko nit doon tegee kenn du feebar mhm. parce que kenn du jël feebar di ko teg sa bopp mhm. comprendre donc il faut sensibilisation boobu nit ñi di ci taxaw nit ñi ñu leen wax ci loolu loolu état mm-hmm. peut-être que ñu lañ ci def nii sax du du suñu rôle mm-hmm. comprendre du suñu rôle voilà mais pas ñun ñoo gaaw a avancé en Afrique mm-hmm. surtout Sénégal méthode yi ñu jël que ce soit muy politique ak lu mu mënti doon dox ñi ñuy continuer doxul doxul na doxul te loo essayé loo essayé waaw cinq soixante ans. waaw soixante trois ans. soixante mille neuf cent soixante ba deux mille vingt trois. soixante trois ans. nga essayé ay système soixante trois ans amoo ay résultats. yaa xayti nga continuer persister di continuer même système. loolu nag waaye di la quoi. waaye di la ñoom ba ne mooy waaye di la de. noonu la de donc il faut ñu si ñu ñu changer système bi. keroog maa ngi koy wax xam naa ki may wax nii dina ma seetaan parce que keroog am benn dina ma dina ma dina ma seetaan. bu ñëwoon clinique ba. Euh, c'est un militaire am bëri de passage. Mhm. su ma déggee rek dina ma xam. Mhm. parce que dafa ñëw trop waxtaan bëgg na toujours bu ñëwaat fa léegi si deuxième jour bi mu fi ñëwaatee sax li mu gën a développé waaw dañ ko may expliqué nag ñu ma njaay man dafa ma militaire laa mais premier jour bi ma fi ñëwee su ma gisul woon ma fi ñëwaat waaw man ma du ma dem ci dem bi nag yàq sa dara nangam nangam. lu muy mu téye sama bopp waaye mu téye sama bopp dama ko waaw ah. mais su ma ñëwaatee rek kon il y quelque chose. Mhm. nga am lu ma fi ak lu demee noonu. ba ñu am ñu projet yu bëri ñu a waxtaan sax yoo xam ne mën na delluwaat ci Sénégal. Mhm. pour pour Sénégal mhm. ci la laa mënoon ma ne ko man li man na xarit mooy ma ne ko pourtant dëkk yi dañ doon defar pour soleil ma ne ko Sénégal ku fi defar pour soleil sax dañ lay jàpp. Ah, waaw waaw waaw ma naqare maanaam mhm. lay jàpp kaso. kooku xam-xam bi ma am ba defar pour soleil dañ ko waroon a jàppale. mu bi exploité xam-xam boobu. waaw ak tëgg yi ah tëgg tëgg yi dañuy defar. waaw boo demee Touba kay pistolet ñu fay jaayee pistolet te tëgg yi nga ko def. c'est-à-dire bi nga ko mooy dañu leen war a encadré. waaye nag comme boo ñu bàyyi ku nekk xam muy. non nekk bari lu xam ci mbaaram di defar di defar waxtu ak pistolet. foofu laa leen mooy boos li jox leen ay matériel machine yu moderne. ñu defar li gars di defar. parce que armement dafa bokk ci dafa bokk ci état. ah parce que il iya, faut ya, armer assassin bu ñu koy ragal lan la wax ñu ragal. ay ah, ay donc ah, c' est vrai <laughs> nit ñu bari. waaw léegi nag te ñoom dañuy développé defal ay sax ay missiles. dëgg mais ñun boo defaree émission yi bëgg naa jàpp dëgg la. fan la ñuy fan la ñuy avancé c'est-à-dire que. Mhm. képp kuy créer benn affaire. ak lu mu mën di def état moo la war a jàppale dimbali la ba loolu nga mën cee. dëgg la mën cee développé. Mhm. ñun tey fu ne nii man dama woon. mais boo demee Europe di nga xam ne capacité yi ñun africains yi am ñoom amuñu franchement. lu leer la lu leer la ñoo ñu ëpp xam-xam ñoo ñu ëpp moyen ñoo ñu ëpp lépp mais ñoom yitte bi ciy def. Hmm. ñun loolu moo su ko defee Pape les maladies génétiques yi yëpp aussi bon ñu koy defee dañ ko dul defee noonu. Hmm. mu gën a tamit avant mariage. avant mariage tamit. Hmm. su mënee di euh, xool. Euh, suñu. <laughs> du yomb de. <laughs> mooy yoon nag. mooy waaw mais moo tax feebaruñu. avant ñuy dugg ci sëy. ci sëy waaw c'est vrai. important. di ko xool parce que conséquence bi mooy. day man am na feebar boo xam su ma ko amee bëgg takk soxna ma dem soxna si am même feebar bi mm-hmm. tey am na am naa deret par mm-hmm. euh, am naa moom te xamu leen ko te xamu am ci mm-hmm. bu boobaa mën na nekk te dañ fa egg nag jamono laajal ko ñun daa daa loolu moo tax boo seetloo sax nit ñi ñu ngi ciy commencé yow parce que ñu ngi naan la sëy bu jege. Ah, waaw baaxul baaxul ñi xam nga ñu ngi lay wax. loolu même feebar ci ab famille. loolu da gën a garaawle. loolu da gën a garaawle waaw te day gën a law. donc bu loolu moo ci nekk. ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi xool bala ngay dem mariage mais nag nga ñun Sénégal lan moo ñu dal paa boo benn parce que am na benn paa boo xam ne moo doon maanaam tey boo bëggee xam sëy bi baax na wala lu baax ak comme ni ñu seetee sëy daa maanaam ci dugg loolu mu doon expliqué euh, bi ma koy jàngal rek moom xam nga nit nga sëy mhm. ne ah ku jigéen ñi baax na sëy baax mhm. wala sëy baaxul ci euh, dugg mu ni ma su nenee baaxul nag yu ci bëri day fekk sori nga ci cest à ba lay xool koy yéexalaat

su doon liggéey di nga wàcc maanaam boo yoroon entreprise dina wàcc maanaam dafa toll foo xam daal. dëgg la boo ci duggee ngay wàcc. léegi nag boo fee yow wane ko jigéen nga ak xale bi daa rafet wala xale bi dafa baax nangam nangam tax mënu ma cee génn mm-hmm. da ngay suuf rek. dëgg la c'est vrai mun ma pour tombé ak sept nag sept mooy chiffre bi ci exemple. Mm-hmm. mun ma pour say parents bañee sax nangu ko bañee sax yow dugal. <laughs> nga say morom. du yomb liggéey di nga raw see borom. donc mooy mooy ñi nga ñoo xam ne dañuy takk soxna pas un an wala une semaine wala deux semaines wala un mois euh, parce que bu nga liggéey ci xam nga wala ñu embauché daanaka. réglé donc yooyu dafay dafay baax. xam naa tamit dañuy leeral ni mu valable ci parce que góor ñu toujours dañ koy xalaatee côté góor rek mel ni jabar ngay takk yow mu jig loom bañ laa jig. góor gi tam noonu lay jigee jigéen di ko bañ a jig. ah parce que ah. affaire de compatibilité la ci wërsëg. du ah. du du si sama xalaatee man. Mm-hmm. du goor gi mooy takk jigen gi jigen gi nek am wërsëg mu ko wala jigen gi nekk ku umaate mu tëju. Hmm. day nek ni daño takante ñom ñaar seen wërsëg andu hmm. andu ok waaw. Ah, waaw la lay demee parce que jigen gi mo nam am beneen jëkkër. Ah. affaire yi déclenché foofu parce que koku la àndal. ok wa non non lay demee. voilà am na benn vidéo bu mu sa sax ci bëgg bi yàgg na. Hmm. diko ko jàngale. les quatre éléments. mooy tawé nit ki xam nga quatre éléments lay am. nar yu trabi bi yu ma yu. ndox safara. Euh, souf ak euh, ngelaw. donc yooyu boo ko xoolee di nga xam ne sëy bi ñoo àndoon lii ànd ñu waaw waaw kon dafa naa ci benn vidéo jàngale ci ak yu demee noonu mm. donc bu ko defee nag noonu bi mooy mm. conséquence bi mooy na bu sa <laughs> papa sa yaay pour pour pour takk jabar je crois man pour man jaru ko quoi ak loo bëgg bëgg ndaw si wala bu dee ko jigéen lu la waaji loo bëgg bëgg waaji mm-hmm. jarul défier sa ay parce que quand même ku jigen ki lum la bëgg bëgg bëgg say parents ñoo la gëna bëgg yow manam ku goor ki lum la bëgg bëgg bëgg say parents ñoo la gëna bëgg parce que say parents kasse ñoo pare pour dé sa place sa jabar wu pour dé sa place yow wu pour dé sa place jabar mais say parents mom pare nañ pour ka mi ne cëpp dañuy yobbu sa doom ñu ne yow yobbu ma bàyyi ko loolu para papa yaay rek ñoo pare bëgg waaw mo tax de bañay ñoré seen yi seen décision dina ci am solo donc bu ko defee lay demee donc en général avant mariage kon bu mënee di xool def analyse xool bi yéen feebar ngeen am yu demee noonu. Hmm. su fekkee nag da ngeen am ay feebar yéen ñaan ngeen compréhension am ngeen xam ne mënu leen a sëy hmm. lii fekk ngeen juree seen euh, jabar seen doom ngeen di lool. ngeen tàqale ko ci tàqal boobu rafet. comme daal mu nekk loo xam ne c'est compréhensif. te kii wuti keneen keneen ki wuti keneen keneen ki wuti keneen hmm. doo a gis affaire wor. waaw seen i mbir a ànd. noonu noonu la rek simple waaw. léegi nag ñi seen mbir ànd xam naa li nga wax na ci si wàllum loolu mu yàlla nañ dem bañ egg fa lu gaaw la xëy na parce que tamit ni mu tëddee ñu bëri tam bu ñuy waaj dugg ci mariage dañuy ragal dem di def ay ay analyse ak ay bilan pour di xool ndax feebar naa parce que dañuy ragal ñu wax leen ab feebar. feebar yàq sëy loolu la tamit quoi foofu foofu la complication bi de waaw nga dem bay waaj takk dem defi bilan ndaw si def bilan ñu gis si ñaar feebar boo xam ni day yàq sëy boobu. loolu la ñuy ragal. loolu la ragal loolu la ñuy tax xam naa xëy na jamono comme jamono day dox nag. mën na dem ba nga xamante ni du nekkati problème. ah mais pour l'instant loolu yomb. yow li nga yombul yombul mais nag jamono dina dox quoi dina ñëw quoi. parce que tamit xale yi ñu ngi jàng di gën a nekk ay di gën a xam donc yu bëri dina dem dina changer mais nag yàgg et puis ndànk-ndànk donc bu ko defee nag Pape les mhm. ci genre domaine yooyu amul garab spécial yoo moom. dañ leen di faj luy demee noonu à moins que nga xam feebar ba pare ba xam ban feebar su boobaa di nga mën a jël benn garab mais en général daal da ngay jël bépp garab boo xam ne mun a raxas deret mën na koy. xam ne day egg ba ci kii. waaw kay xam day raxas ay deret ak yooyu rek. ci gène yi di set ak yu demee noonu. lu mel ay jinjeer di ko naan baax na. lu mel ne ay persil. yooyu tamit di ko naan baax na. donc yooyu bu nit ki bu amee am naa garab yoo xam naan doo dina ci def émission. ko amee di ko naan yooyu tamit mën na mën na mën na baax. nan la ko mën a jëlee. waaw bu dee naan boobu nga koy xool. Mhm. ñetti reen ci litre ndox. Mhm. di naan di dolli ndox naan dafa dafa weex ko comme sañ-sañ njëy. loolu mu gën a wax sañ njëy. Mhm. donc moom noonu lay demee da ngay naan boo naanee dolli ndox doo ko baax da ngay xool loolu moom baax na ci yu bëri ay biir bi météo yu demee noonu. dañ ci def émission xam naa ci garab yi. bu defee bu dee persil moom da nga koy infuser di naan

di ko baaxal di naan yooyu tamit dana ko renforcer ndax moom tamit éviter du tëj kénkiliba bu bari mu quoi. muy éviter baax bu bari. d' accord mën na ci naan sax bu bari quoi. mu ci xeer daal. d' accord loolu yaakaar naa na. moom xam naa nag euh, comme li ñuy wax sànq rek war nañu côté science bi. Mm-hmm. ñu gouvernement gën a ñaax xam naa ñu koy sax parce que am na ay concours yu ñu def. Mm-hmm. yoo xam ne ci côté science lay gën a jëm pour pousser jeunes yi. waaw ah, mooy prix yi nga xam ne dañ koy joxe chaque année grand prix chef de l'État yooyu.

ay kat France ngay mën nek ak ay avocat xeet boobu dal wala xam nga xam nga wala voilà yooyu xam nga lu gën a gaaw cest wala dire voilà cest à état lu mu bëgg man ci sama gëm-gëm. état lu mu bëgg def mën ko def. am loolu laa gëm état lu mu bëgg def mën ko def. sama papa nee Cheikh Anta da wax ni bour len do moo ko jigul. deena biig. deena Cheikh Anta Diop moo ko wax. mu ne président lenn doom moo ko jigul mhm. dee na biig ah, à part loolu lu mu def jig maam lu mu bëgg a def def ko na ko def bëgg a bëgg a def def léegi nag foofu laa la li fi xew jamono ji dañoo war a def copie collé li ñuy wax copie collé mu gën a gaaw mhm. de jeunes yóbbu leen Chine def leen formation mhm. ci bu nekk ñëw ñu teg yomb ubbi suñuy industrie boo jëlee cent jeunes ci wàllu agroalimentaire exemple yóbbu leen Chine ñu def formation bi ñëw mhm. gérer loolu bu fekkee même ci wàllu auto auto def fabrication auto yu demee noonu mhm. nga dem ñu def formation mhm. fabrication moo xam arme wala demee noonu di c'est-à-dire noonu ngay def ñëw teg leen ñëw équipé bu dem mais problème bi mooy luñ dem jàngit day ñëw di dugal ci tiroir yi exemple boo demee tey Cheikh Anta Diop université thèse yëpp mu ci tiroir yi ñu rangé benn benn nañ lépp. waaw Sénégal sax bindaguñ sax si deux mille cinquante. waaw moo sax bind nañ ci ay livre. waaw lépp lañ dégg thèse yëpp bi ñu ñu tëj. mais appliqué. appliqué mooy problème donc yaakaar naa vraiment jël appliqué am problème appliqué développé dañ ñëw fii ci thèse yi lañ jël rek appliqué ah fii lépp bind nañ ci donc ci internet bi sax thèse thèse da nga koy gis léegi internet parce que bibliothèque numérique yi ay faseg ak yooyu da nga koy da nga koy mën a da ngay da ngay da ngay da ngay recherche des fois ci Google ci benn affaire bu nga ci thèse sénégalais bind mu en ligne mais secteur ngay comprendre comprendre ngay comprendre dal na may ci thèse sénégalais parce que da def ay recherche temps bu mu bind ko mm-hmm. da xam voilà ci euh, application tamit bind di di bind te bo gesto ba pare bind ko mais jefe wo ko do gis ben resultat waaw li nga wax nii daf ma dal euh, moo tax di waxal mag ñi dafa baax bi may gëstu xam-xam asra ma toog a caali benn paani ma gis nga affaire yi boo ko wu xam nga mi ngi melni nga am yére bu bees ta solo ko wala nga am oto bu bees te dawaloo ko neen du la jëri dara yére boo jël bu bees tax nga te ci armoire bi neen ma amul benn njëriñ te soloo ko ndax nga sol ko boo solee moom dina am njëriñ nga fi denc rek mhm. dëgg la ñuy seeraan xam dara <laughs> mais xam ne lu mu du note mais bu notee foofu du ko a def waaw kay a def da ngay dégg ñu la yow boo defee eh, sa salaat salaat ala nabi bi ngay def cent par jour baax comme li bind note nga dund fi cinquante ans mosoo ko pratiqué. mosoo ko pratiqué waaw. ba pare ban résultat la demal bind denc. Mm-hmm. <laughs> professeur bi ko toppee xam naa une heure de temps lañ jëm. xam naa ñu bàyyi la nga tàggoo. ba ñëw ci la semaine nag bi di ñëw boobu internet yëpp di leen siyaaraat di ci plante de la semaine euh, wasalaamaaleykum mm-hmm. wa rahmatullah